de telle sorte que yaakaar na ne daf ñuy teg nakar mais daf ñu gën a indi bànneex muy lan président Ousmane Sonko ku mu joxoñ ñun kooku la ñu joxoñ dama bëgg diaspora bi kontaan ci seen bopp ndax diaspora bi tey bu ñu waxee parti Pastef diaspora bi daf ci am solo bu baax a baax a baax donc ñu ngi leen di yóbbante yéen suñu njiit yi nekk nii di jàkkaarloog ñun ngeen bàyyi xel ci diaspora bi parce que dañu am wàll ci parti bi euh, di ñëw rek euh, di remobiliser lay wax sama gaay yi képp ku nekk ak foo mën ci nekk na sama kàddu wala seen kàddu di gën a jóg di wax ne nañu remobiliser wu nañu taxaw jàkkaarloo ak Macky Sall lu ñuy jàkkaarloo Macky Sall mooy dañuy dem euh, li nga xam ne mooy élection bu ñu demee incha allah ci élection yooyu bu ñu fàtte bépp bureau na ñëpp mot képp koo xamante ne ni yaa ngi taxaw di liggéeyal Pastef tey la gën a war a takku ci xaalis ci taxawaay carte d'identité yi nañ leen ko jëli. teg ci bureau yi nañ leen ko sécuriser suñu vote parce que lu ñu mënti sàcc ñun bu ñu nekkee ay mandataire nekk ay représentants de bureau nekk ay plénipotentiaire tey la ñu war a gën a taxaw jàkkaarloo Macky Sall wan ko ne du ñun ak yow peuple bi moo soxla li nga xam ne mooy changement il est temps dafa doy dafa doy benn système bi fi nekk depuis 1960 ba léegi not ñu not suñuy doom ñun ñi nga xam ne suñuy doom dafa juddoo ci diaspora bi dégg naa léegi sama benn sœur wax ko dafa jot suñuy doom bu ñu demee ñu comparer ak seeni doom xam ne gënul ñu leen ci benn côté ndax Sénégal ba ñuy juddu kenn choisir woon ban sénégalaise ngay doon mais yàlla moo ñu choisir ñu nekk ay sénégalais diñ bokk ci Sénégal te dañ ciy dund. donc loolu moo tax yéen ñëpp da ngeen war a jóg jàkkaarloo nag ak Macky Sall xeex mënatul am parce que ñun xamoon nañ ne fii lay ñëw li mën a am mooy ñu jóg protéger li nga xam ne mooy sunu scrutin hold up bi ñu bëgg a def duñ leen ko may li nga xamante ne nag foofu la ñu jaar. mu ngi mel ni ngay dem désert di Sahara rek doo yor lekk doo yor naan doo yor dara dee rek moo la ciy génnee boobu ba léegi ñu ngi dund donc Macky Sall mënuñu rey di leen jaajëfal bu baax di kontaan ci taxawaay bi di wax ne na ñëpp jóg taxaw tey la ñu gën a mën a taxaw tey la gën a détermination bi war a gën a yokk merci beaucoup.